Touba ndaje bi tey ndaje bu am solo la euh, premier ministre Amadou Ba ñëw ci turu président de la République présidé ko mu nekk ndaje boo xam ni lu toll ci junney doomu aadama ak lu ci topp ñëw na fi daje ci Dakar mu nekk rencontre internationale ndaje bi nag maanaam ñu ko organiser CETUD la xam ngeen CETUD fii ci Sénégal CODATU muy la coopération donc. Euh, Euh, d'amélioration des transports urbains ak aussi climate change ñu bokk organiser ndaje bi tey ci Dakar mu nekk ndaje bu am solo ñëpp xam nañ ni maanaam lu ñuy wax changement climatique euh, nu muy manifesté woo soit taw bu bëri indi ay inondation wala taw bi néew loolu indi lu ñuy wax maanaam sécheresse euh, te loolu lu koy indi bëri na phénomène yi xëy na wàllum nit ki nit ki am na ci wàll tey jii ne ndaje bi Euh, dañuy waxtaan ak experts yi ñu préparer benn déclaration boo xam ne dañuy wax déclaration de dakaar pour que sommet COP 27 buy amee fële ci Égypte Sharm el ñu mën fa yóbbu déclaration boobule. waaye bu ñu gisee ndaje aussi dañuy wax wàllu mobilité maanaam dox dem beeg dikk bi te ci Sénégal am na effort yu bëri nga xam ni président de la République def na ko pour indi ci saafara effort yooyu la. bi ñuy wax le train express régional TER mi ngi fi mi ngi daw diggante Dakar gare Dakar ba Diamniadio fii mooy waxee yéen am na projet bu ñu tuddee BRT jógee Géejawaay dem ba Petersen mu nekk euh, maanaam transport boo xam ni transport de masse maanaam day yóbbu nit ñi bëri euh, travaux yooyu ñu ngi ci te na pare bu soobee suñ borom ba pare autour de BRT effectivement. def defaraat transport bi maanaam ay bus yoo xam ni dañuy jël jëlee nit ñi seen i dëkkuwaay wala seen ay koñ yóbbu leen ñu dem soit ci BRT bi wala soit ñu dem ci TER bi loolu yëpp bu ñu koy def nag c'est pour que ñu mën a xool wàll wàllum dem bi dikk bi def ci ay jumtuwaay yoo xam ni du ñu génne gasoil maanaam saxaaru gaz wala saxaaru essence wala saxaaru gaz parce que saxaar yooyu la. maanaam experts dañu ni day indi maanaam problème ci wàllum changement climatique yi donc loolu suñ koy def bu koy président def c'est pour mën a contribuer maanaam ci ay efforts yu am solo pour wàññi lu ñuy wax les gaz ay effet de serre donc fexe ba nga xam ni transport bi non seulement réponse pour transport bi naam saafara pour transport bi naam parce que daañu am lu ñu mën a yóbbee askan bi te nit ñi duñu utiliser seen ay oto yu bëri oto yoo xam ni gaz la wala essence la donc loolu maanaam ci benn pàcc rek la ci waxtaan buy am fii wala war a boole yeneen waxtaan yeneen xel ak yeneen xalaat yoo xam ne daañu ko dugal ci déclaration de Dakar maanaam yóbbu ko fële ci Égypte ci càmmeri Tchèque. Euh, waaw xam nga BRT bi foos ba bu ngeen seetloo ñu ngi ci liggéey bi yoon yi xàll nañ ko ci bëri xaw na pare waaye jàpp nañ ni décembre bi di ñëw decembre bi 2022 tali yi dañuy pare tout ce qui est infrastructure dana pare. ak wàllum aussi lu ñuy wax instrument bus yi nga xam ne ay bus électrique la commandé nañ leen ba pare euh, dana am ay peut-être une vingtaine war a ñëw avant mars deux mille vingt trois demee ba juin wala juillet deux mille vingt trois daañu yeneen bis yi daañu ñëw comme ça BRT bi commencé yi daw bu neexee yàlla donc BRT bi solution la euh, te dana indi maanaam dana wàññi lu bëri jafe ci jafe-jafe yi nga xam ni maanaam askan dañ koy dund ci wàllu dem beeg dëkk bi. TER bi mi ngi daw diggante Dakar ak jam Diamniadio deuxième phase bi Diamniadio AIBD tàmbali nañ ko parce que gaaru gaaru gaaru AIBD bi ñu ngi koy commencé liggéey yoon yi ñu ngi koy xàll tey jii may wax yow quinze ram TER mooy daw quinze ram maam fukki ram ak juróom euh, balaay maanaam deuxième phase di pare yeneen juróom-ñaari ram daañ ko ci fekk daañ leen ci fekk si mu nekk ñaar fukki ak ñaar yoo xam ni daañu war a daw diggante Dakar ak ay AIBD loolu nag lu muy indi comme maanaam yombal mooy fexe mu gën a teer bi gën a yóbbu askan gën a bëri euh, comme ça dem bi dikk gën a yomb bu demee ba nga xam ne sax peut-être ni bëgg nañu yokkaat nit ñi nu ñuy demee dem bi xam nga tey teer bi toutes les dix ñaar fukki minutes bu nekk lay benn départ soit dem biir Dakar wala jege jam ñaajo ñëw dakaar mën nañ dem ba nga xam ne mën nañu wàññi waxtu boobu c'est-à-dire wala ñuy toog fukki minute mën nañu xaar juróom-ñaari minute wala juróom-ñetti minute bu boobaa lu muy gën lu muy yóbbu ci ay askan day gën a bëri donc loolu am solo en attendant bi yegg Mbour wala yegg Thiès parce que troisième phase bi loolu la président joxe comme ndigal ñu mën a étudier troisième phase yegg Thiès et plus tard ñu yegg Mbour. donc euh, recrudescence euh, des accidents un petit peu l'échelle nationale. Des mesures sont donc en train d'être prises au niveau de l'Agence nationale pour la sécurité routière en termes de sensibilisation et d'information pour amener les acteurs à plus de prudence. Mais parallèlement aussi, donc, des actions de contrôle sont en train d'être menées euh, pour, euh, au niveau de, sur l'étendue du territoire national, euh, pour le, le contrôle des pièces techniques, surtout le contrôle technique des véhicules automobiles. Et cela va contribuer naturellement euh, non seulement à amener non seulement plus de présence, mais aussi plus de responsabilité au niveau des acteurs pour mettre donc euh, sur la route des véhicules en état de rouler. Donc ce sont pour le moment ces ensembles donc, de mesures prises par l'État en attendant qu'une rencontre en conseil interministériel euh, euh qui sera organisée par le Premier ministre regroupant l'ensemble des acteurs Et de là, donc, découlera donc, euh, une série de mesures pour apporter en tout cas des, des réponses par rapport aux accidents que nous constatons ces temps voilà xam nga ay bëri yu am ci ci yoon yi et cetera euh, te gàmmu mi ngi ñëw fi may waxee yéen agence nationale pour la sécurité mi ngi def ay tournées de sensibilisation ak information pour indi maanaam chauffeur si ak ñu nekk ci yi pour ñu mën a gën a teylu def ndànk pour accident wàññeeku donc loolu dafa nekk lu am solo euh, beneen bi gis ngeen ni gendarmerie national mi ngi def ay contrôle yu bëri ci visite technique yi parce que oto yi gis nañu oto yu bëri daw aussi seen visite technique soit toppatoowuñ ko wala sàggan nañ ko loolu aussi dana tax maanaam askan bi ñi nga xam ne ñooy dawal yooyu daa ñu teg ci tali oto yoo xam ni maanaam seen pièce mën na pour ñu mën a daw donc loolu dafa nekk ay mesures nga xam ne jël nañ ko en que premier ministre convoqué bi lu ñuy wax benn euh, conseil interministériel ñu boole acteurs yëpp toog waxtaan euh, euh, seet mesures yi ngay jël yoo xam ne état bi nañu ko jël ànd ceeg ñoom pour ñu jéem a wàññi maanaam accident yi loolu yëpp ci wàllum discipline da ciy am mais aussi respect donc code de la lu ñu jox ci le comportement humain parce que xam nañ ne accident yi en réalité lu bëri lu koy indi mooy maanaam donc le facteur humain et loolu daañu ci taxaw incha allah rabbi.